amul lenn les voitures de la présidence de la République du Sénégal dirigées par cet homme Laykara le voici confirmé dans les audios de Khaliphone Sall ma indi leen ko ngeen dégluwaat ndax ñun dañuy bëgg lépp lu ñu wax pour sénégalais yi déggu ko non seulement mais ñu xam liñ leen suukaru pré baal loola loolu moom bu ko déggee si kaw baal loola. du ma wax laay laay suukaru président sama gars la loolu. loolu dimbali yàlla mais dañ lay dimbali sàcc. yow yow yow yow laay kara laay kara suukaru président xam nga bu demee ba am tool. temps yooyu noonu ba ma woowee jox ma moo leen presque un million daa ma jox ay téléphone pour ay surgaam ay surga mu jënd leen ay galaxy. xam nga ni Sénégal yàqu na. <laughs> cootu ndey li lu toll ni suukaru président di am na ay tool. suukaru pré baal na loolu moom bu ko tegaamee si kaw baal na. non du ma wax laay laay suukaru président sama gars la loolu non du ma wax si parce que. moom gis nga 4-4 am bu mu doon président moom c'est ça le Sénégal lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal gars yi comme fi ma doon waxee Macky Sall a commencé d'attaquer la Casamance encore Casamance. Macky Sall mi ngi ciblé doomu Casamance yi mi ngi leen di attaqué ci bépp fànn nag mi ngi leen di attaqué Macky Sall mi ngi attaqué waa Casamance bato yi dematuñu Casamance tabaski moo jot de bato Casamance yi dematuñu Casamance kenn duggul kenn génnul ku jóge Casamance dañ lay palpe comme un vulgaire délinquant pour lan loolu Macky Sall moo ko xam ñun xamuñu ko mais dama bëgg sénégalais yi ñu jël leen à témoin ñu ne leen Macky Sall est en train de créer une guerre civile ah, il est en de provoquer une guerre civile il ne va pas la, créer mais il est en de provoquer une guerre civile en Casamance Macky Sall ngi provoquer guerre civile Casamance dama bëgg a ngeen déglu doomu Casamance bi mbokk waa Sénégal tey seen doom seen mag rak mu ñëw pour waxtaan ak yéen mbokk waa Sénégal yaakaar naa ñu ci jàmm mbokk xam naa mbokk waa Sénégal waaye dama bëgg vidéo bii képp ko déglu rek te mu amal la njëriñ te nga xam ne dina am ñi nga xam ne dina leen amal njëriñ partage euh, ndax jamono yi passé naa vidéo bu mel noonu doo ko si sama page TikTok mu am sama benn grand boo xam ne Aliou Samb Bodia bu nga ne moom ñëpp xamee nañ ko si taxawu dëgg si xeex li ne lépp luñ teg lu nga xam ne mooy injustice côté Casamance. tey def na benn vidéo waxtaane ko en français mais man damay ñëw bamtuwaat ko si wolof mbokk waa Sénégal Casamance ñoo ngi dund mbokk waa Sénégal ba xam ngeen ni jamono bu may wax yéen nii amul benn benn benn bateau bu doon jógee Dakar def Ziguinchor buy daw. mbokk waa Sénégal arrêté nañ bateau yi doon dem Dakar di commencé Ziguinchor te amul benn situation bu leer bu ñu mën a wax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii dem Casamance mbokk waa Sénégal baa xam nga ni Dakar dem bi dañ ko tere dem Casamance mbokk waa Sénégal baa xam ngeen ni képp ki nekk Casamance te ngay dugg Dakar surtout nga gën a doon jeune dañ lay pal danga set wecc mbokk waa Sénégal ba xam ngeen ni am na ay jeunes yu bëri yoo ne dañoo doon joor jógee commandé euh, traitement pour ñëw Dakar jàpp nañ leen dugal kaso mbokk waa Sénégal baax yëg ngeen ni gouverneur bu Ziguinchor dafa génne arrêté restreindre yi nga xam ne droit de circuler bu nga xam ne ko ci biir euh, Sénégal mais benn parti bi ngi nekk Sénégal bi nga xam ne Casamance la tudd boobu dañoo trouvé niñ foofu dañ ko war a restreindre ay liberté jàmbur mbokk waa Sénégal jamono bii may wax a yéen nii nii Casamance am na ay heures yi nga ñu jox nit ñi pour ñu mën a daw mbokk waa Sénégal lan moo ko fi jaar mbokk waa Sénégal dafa am benn leader bu bees bu ñëpp di topp mu dëkk Casamance waa Casamance gis seen bopp waa Sénégal gis seen bopp ciy tudd Ousmane Sonko tey moom moo waral ñu nekk di teg coono Casamance yëpp ndax moom tey dañ ko jàpp teg ko ci benn résidence. mais loolu taxu ñoo ñu ko taxu ñoo ñëw fii mbokk waa Sénégal da nga ngeen xam ni dafa jot ngeen xam ni Casamance Sénégal la bokk bu fekkee ne gëm ngeen ni Casamance Sénégal la bokk dama bëgg yéen nañ jógandoo kattandoo dóorandoo ndax lii mënut a continuer il faut mu ngeen xoolal dénoncer taxaw dénoncer nu mu gën a gaawee ndax bu mu toll nii dañoo jublu si ay fête dañoo dublu si tabaski ñoom ñoo ko tey ñu restreint li nga xam ne comme moom moom lañ génne comme ay acte Dakar commandé Ziguinchor gouverneur def lu ko neex waa Dakar dem ni def lu leen neex tey Aline Sitoé Diatta ñu ne leen mooy i bateau yi ñu defaat lu leen neex la dañoo bëgg connecté loo yi dañoo bëgg ñu tëpp parce que yegg nañ ñu wax ay rebelle lañ fu ñu fu ñu dem si sëriñ ñu wax ne ni ñun ay rebelle lañ Ousmane Sonko rebelle la doomu Casamance ay rebelle lañ. te tey jii boobu moom mooy moom moom la moom la gouvernement bi gën a fësal tey te am nañ taxoon fii ne Macky Sall dafa bëgg Casamance Macky Sall dafa bëgg doon Casamance lan moo xew Sénégal ba ñu naan Casamance heure bi la ak heure bi nga war a daw guddi kenn waratul daw te waxuñu oto kese mais ñëpp képp vélo oto euh, bi ñu commandé moto lépp li nga xam ne moom day commandé mooy de transport la kenn amul droit jéggi ay ay am na ay côté nga xam ne ay parties am ne ay parties de sénégalais voilà lii yéen ko déggal seen bopp waxuma ko de dama bëgg ma tegal leen audio nervi bi ngeen dégg audio bi nervi di wax ne pale yi pale bi ñooy fay nervi le palais de la République. Robert Bourgi a dit que c'est le monde qui est en de comploter contre Macky Sall. Écoutez cet audio. mersi déglu leen fii. déglu leen audio nervi yi fii wute ah, déglu leen. baal leen ma de audio bi day charge baal leen ma ma indilaat leen ko baal leen ma day day day day load day charge quoi baal leen ma. ma ma indi leen audio bi ah day chargé merci. waa mais fils naka maa ngi siyaar. déglu leen. yaa ngi toll. oui mais man daal la bi laa jógee nii sax doo laaj moo ne mun ah ma il faut leen nervi bi nee na kër grand bi laa jóge nii pour dem récupérer morning bi mu ma il faut mu dégganteeg waa pale je vous ai confirmé tout à l'heure am na nervi yoo xam ne dañu confisqué ay armes ñu ngi ak ay armes ñoom arme yooyu nga xam ne ñoom la yóbbu woon pale ndekete gars yi arme yu bari génne nañ ko fa sax di ko partagé waat ay nit ci mbedd mi déglu leen. moo sant na ñoom xam waa mais fils nagaw maa ngi siyaar yaa ngi dalu waaye mais man daal drap bi laa jógee nii sax xam nga donc laaj moo ne a naa ma il faut mu tege teg waa palais waaw mu waxee noonu dama sant na ñoom xam dañoo jeexal am bu ko déggee mu waxee loolu daa mel ni li ko joxoon dafa jeex te xam nga comme yore nañu benn trans moom mu laa doon xam nga mais mel ni ñoom dañoo jeexal man nag xam nga yëngal naa ci kawam nee naa ko nag affaire bi du demee sax naa ma kon na yi indil yooyu nee ko nag nekk loolu mënul nekk yéen xam nga lu wax yéen ceene leen ceene leen waaw ceene leen armes foofu rek tee leen waaw bu leen def dara nee naa ko gars yi moom duñu jégatul tant que moo leen génnul xam nga waaw loolu daal laa mujjee wax ak moom waaw nee naa ko nag lay déglu waaw nee naa ko ñoom lay yi rek nañu déglu rek dara yëngu nañu taxaw benn place di xool leen daa mel ne yow jeexal ñoom xam nga muy demee sax xam nga waaw ful bi la ñuy muuroo tal seen kaw ñoom seen bopp dañuy dogal waaw. affaire bu jaaxle ñu dëggante ñu daal ci gars ci pep. waaw mais maa lay woo jotuma la maa lay woo jotuma maa lay woo lii léegi maa ngi insisté sax mais xam naa dafa nekk ci évaluation waaw. grand bi déggante nañ après bi ma jogee ci moom sax après daf ma woowaat xam nga. ñu teg xam lu baax ñu ngi jéem a négocier nag mais li ci garaaw mooy xam dama dégg saa yu bëri waa boor ba la ñoom xam ñoom ñu ngi expliqué seen biir sax naan xam gars yi dañ leen bëgg a tay nag dañ leen a de waaw ñoom xam dañoo dégg ne xam gars yi ñu ngi dajale ay preuve ñi ñu léegi nag nee na ñu ñu nga xam ne ñu ñi ñu leen di joxal ñi ñi ci xamee yóbbu leen ci preuve yi xam nga ñooñu ñëpp après ñoom bu ñu pare dañuy raxas de dañuy setal de dañuy sacrifier xam la loolu dégg naa ko for naa ci weewu bëy bul def nag bul nelaw waaw jàllal moom si gars yi et puis affaire bi sax xam nga ñun mooy mooñ ci bàyyi et puis xam nga waaw bu la nelaw comme egg nañ si cat bi nii xam nga ñun dañ defal seen temps ñoom dañuy def ay criminel la ñun ñëpp ñoom boo ko xoolee ni ñuy defee ñun sax dina xam ne dina ñamal ay muur yi xam nga dafa ne ñun dañoo xiif du loolu de ñun affaire de sumar rek moom ci tool waaw affaire de sumar rek moom affaire de sumar rek moom ci bàyyi te benn instant waaw Sénégal mooy gañe de waaw man nag xam nga ñun ñëpp fi leen dëkk ñoom ñoom seen seen seen seen situation baax na xam nga maintenant nag bu fekkee dañuy jéem a technique ci ci affaire yi pare dóor ñu ci ba pare taxaw ñu ba pare ba ñu sacrifier man du ma dox man doxuma ci loolu de waaw man doxuma ci loolu du fa la daal xam nga liñ ci liñ ci war a xam nga liñ ci war a lekk moom nañ ko ci lekk waaw te bañ a nelaw benn yoon waaw ñoom ñëpp ay criminel lañ ñoom ñëpp ay criminel la pour ñoom ñun ay ngaaka lañ dañuy nelaw non non xam nga ñun expliqué nañ suñu biir waxtaan nañ suñu biir benn instant nag xam nga ndax ah, nañu pare ñun tamit nañu pare te xam nga ne moom loolu ñu wax moom attan nañ ko def parce que boo gisee xam nga kuy rey ak ay policier di éliminer moom xam nga ñun xam nga ñun booba après ñun duñ doon ay dañuy naan sax ñoom ñoom pour ñu seeyal la benn benn affaire bu ndax lay doon te ah, bu ñu nelaw nag waaw man daal affaire bi mooy loolu nan dafa taxawaay xam la voilà je pense que lii ñun ñoo ko déggandoo. nervi yi xam nañu. ils savent que ces gens-là sont capables de les sacrifier. et ils ont décidé de garder les armes pour en cas en cas boobu nag en cas boobu mooy en cas précédente bu dangereux parce que yéen ñi xam. xaw ma ndax yéen a ngi seet yeneen dëkk yi xam nga senegal ba léegi rey nañu ay nit de waaye xamaguñu deli rey nit xamaguñu rey nit dëgg dëgg dëgg dëgg capacité bi et suñu nervi yi loolu lañ leen bëgg a tàmmal fi mu ne rey nit parce que soo xasee ba miin rey nit dang ciy sadik dangay nekk nit koo xam ne danga ciy ëppal te foofu la Sénégal yegg moo tax ma bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax gaa yi maa ngi leen di santa di leen gërëm ma tàggatoo leen nag video bi vidéo bi ma tàggatoo leen ko ngeen dégg ko bismillah ah waraf la dafa te chef d'état dafa war di rey di tëj de ah waraf la dafa war di rey di tëj wuta ay buum ak i ku dog dañ lay yow ba nga ne modd génn ci biir géej jën yi lekk na fële dara bal du takk dara du xew. Allons-y, nous vous battrons en 2004 et nous passerons devant vos cadavres sur vous le voulez parce que nous ne reculerons pas. Ousmane Sonko dama ne buñ fi gisee benn élément perturbateur ci Dakar fii dinañ dem daal comme ni Sonko keneen góorgóor gi. affaire yi il faut rek ñu ne xam nga man mën a gëm mu ne ma mos a gëm moom laa wax dama koy affaire Ousmane Sonko il faut le régler selon la loi boo koy laa la loi ñuy rey sénégalais quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais nan leen rey dix pour cent yi continuer dund. c'est grave ça. man yàlla yow dénk réew mi. Ah, fitnaal nit ñi. kooku duñ ko rey benn yoon mu jeex. Ousmane Sonko ku ñu war a rey la. j'ai écrit Sonko est monstre il faut le tuer.

billaahi rey leen moo gën maa wax de maa wax benn sénégalais bu dee ñëpp am jàmm lu muy wàññi bëgg a taal Sénégal kay wax dëgg yàlla yow lañ war a taal <coughs> lii mooy Sénégal lii la gars yi ne c'est le Sénégal de Macky Sall maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat dig daje suba incha allah wa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu merci